muteg ca ne wa ida samicta boo déggee rajula nit ka yataanu muy jam ala al aathaari ca jeexit yañ tuxal jële ko ca yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala ñu jële ko ca saxaaba ya wala ñu jële ko ca ña topp yonent ba ak saxaaba ya loolu mooy al athar lim jubli ci al athar foofu mooy xadis yu wér yi jóge ci yonent ba wala yañ tuxal mu jóge ca saxaaba ya ak lañ tuxal mu jóge ci ña doon topp yonent ba ak saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain boo déggee ne am na jenn waaye joo xam ne suñ ko indilee xadis wala ñu ne ko Abu Bakar Siddiq nee na mu ne ah yooyu de moom wala yaqbaluha te du ko nangu أو ينكر ولم يود شيئا دارا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمك ديجينك نيانا فتهم هو تومالكو على الإسلام تدين الإسلام تبطم كوكو سيو بنغ تومال الإسلام نكي الإسلام آجنا سيطات داخ كي وخي يرن تبي عليه الصلاة والسلام نيو مؤتنا تخو ودي تدارا وخل ودي لبدي waaye aw yunkiru shay'an weddi dara ci loo xam ne sax na ne lii yonent bee ko wax wala moo ko def nee na kooku tuumaal ko ci lislaamam fa innahu nekk moom kat rajulun waay la radiul qawli wal madhab ku bon ay wax ku bon am ngir la képp koo dégg mu weddi moo xam nag lay wum mën a jël ba weddi lu jóge ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam kooko jàppal ne suubu na ngir moo xam ne ngir mu bon la te it sooy boo nga xam ne kooko lislaamam ku ñàkk lislaam la loolu mu ngoog wa innama li am kay mooy taana jam na ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi ki waxi yonent bi ñëw mu jam wax ja wala waxi saxaaba yi ñëw mu jam seeni wax nee na kooku jamul wax ja waaye yonent bi ci boppam la jam saxaaba yi ci boppam la jam moo tax mu ne wa innama taana ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi kooku kay yonent baa ki saxaabaam la jam mu firndeel loolu lu tax wax ji jëmul ci yonent bi ak saxaaba yi jëmul ci waxi yonent bi ak waxi saxaaba yi waaye ci yonent bi ci boppam la jëm ak saxaabaam من لأنه <coughs> إنما عرفنا الله فلن خمي نون فلن خمي يننتبي فلن خمي القرآن القرآن لا فن خمي لي لو فن خمي لي باخ <coughs> فن خمي أدنى جي في جوجي ألق دنيا دم الآخرة لول لب نونكو خمي أنا بالآثار ñi ngi ko xamee ci lii ñu jëlee ci yonente bi ak i saxaabaam alquran sax pour ñu xam ne alquran la fañ ko mën a sukkandiku mooy waxe yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam yonente bi moo ko wax saxaaba yi ñoo ko solo jëlee ko ci moom amul benn riwaaye ci riwaaye alquran yi jàng lu dul daa jaar ci benn saxaabi yu ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon boo ci jamee lenn rek weddi nga yàlla wedd weddi nga yonente bi weddi nga saxaaba yi te leen weddi moom weddi nga yàlla foofu lim la fi woon mooy wax ni jullit bi war naa wattandiku li xas sax ne lii ci diine ji la bokk mu wattandiku di ŋàññi loola wala mu di ko weddi la bokk ci diine ji nag mën naa doon loo xam ne alquran a ko jàngale man naa doon loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale mën naa loo xam ne saxaaba yi ñoo ca dëppoo jàngale ko lu mel noonu ab jullit da ciy teey su ko mënee jëfe mu jëfe ko su fekkee lot na ci jëfe ko mu xamné mom mi mo lot même su ko mënta dégg sax mu xamné mo lot ci dégg maanaam am xelam mo maax wala xelam ñëwatul mënatul la dégg wala amna lu ko gar waye du tax mukk mu ne lii moom li muy tegtalee xel nanguwu ko sam xel ko nanguwut yow maanaam sam xel dafa am lu ca sikk moo tax mënatoo koo xam waaye bul tuumaal mukk texte bi nga xam ne dafa sax jóge ci yàlla wala mu jóge ci yonentam mu ngoog bi loolu jàllee mu ne wa ann alqur'ana ila sunnati ahwaju min alsunnati ila alqur'an day lim rek yi nga xam ne yépp des ko <coughs> yi nga xam ne yépp des ko war a gëm moom lay lim saa bu ne wa ann rek mu ne ويجب الإيمان أن وأن القرآن جادنا نقمن القرآن أحوج موغنا آجو إلى السنة تي سنة من السنة تي آجو سنة إلى القرآن ما نام bëgg a wax ne alquran nim سنة sunna sunna aajowoowul noonu alquran luy loolu الإمام البربهاري دكو وخوا يجلي تي تابعوني كما اللي مكحول الشامي وخنا كوتا سند بو ويرلا بوخنا الخطيب البغدادي جينا نكو تي تيرم بيوخ الكفاية ابن عبد البر جينا نكو تي جامع بيان العلم وفضله آه، الحازمي عندنا كو تي تيرم بيوخ الناسخ والمنسوخ sanad bu wër la jóge ci makxuul alchaami mu ne alquranu ila sunnati axwaju min alsunnati ila alquran alquran nim aajowoo sunna sunna aajowoo noonu alquran maanaam alquran ni ko yàlla wàccee ak ni mu tegtalee li muy tegtale ngir nit ñi mën koo xam aajowoon a sunna ñëw leeral ko loolu moo tax mu yebal ab yonent mu ñëw di ko leeral nu mu ko doon leerale waxam ak jëfam akum jàngaleem ci la doon leerale alquran maanaam daanaka loolu wax la joo xam ne eh, ku settantal ku nekk xam nga ko buñ la ko waxul woon itam ndax texte bi ñëw am leneen lu ñëw di ko saraa la koy saraa moo koy leeral kon texte bi nekk ab matn nga xam ne texte la la koy leeral texte bi aajo woon na ko waaye jëmmi la koy leeral moom aajo woowut wax dëgg yàlla texte bi nga xam ne moo gën a gàtt moom muy leeral bale moo tax dañ lay wax ne alxuraan aajo woona la ca nekk te fekk alxuraan daa ñëw tënk ko te daa ñëw tënk ko bu gàtt aajo woona sunna ñëw tinki ko ba nit ñi mëna xam li borom bi tabaraka wa taala wax fi lu mu doon sahaba yi dara daan wàcc duñ duñ ñu déggee ko noo xam ne bokkut ak noona te arab lay wax arab yi leer nañ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بم واتشي ñi gëm yàlla te seen ngëm yàlla gi ak tooñ jaxasoowu ca noonu la ko saxaaba yi déggee ndax bi zulmin la wax ñooña de seeni xel dal na te it ñu gindiku lañ saxaaba yi ne kon nun ñëpp alkunam parce que tooñ moom kenn mënu cee mucc yonent bi ne leen déedéet du li ngeen di wax de zulmu bi sa morom di wax fii mooy ashirk inna shirka la zulmun azim ci alquran zulm bi yàlla di wax foofu mooy bokkaale kon alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin ñi gëm yàlla te jaxasewuñ wuñ ko bokkaale ñooñu ñooy am lool yi suñ borom tabaraka wa wax kon saxaaba yi dégg nañ foofu baatu zulm te xamuñu lu muy firi yonent bi firi leen ko moo tax alxuraan ci boppam ngir nga dégg ko sunna moo la koy firil ba nga xam ko lenn li yonent bi da koy wax comme laay jooji lenn li da koy jëfe ñi xam ne kon nii la bi yàlla wàccee nag julli leen yaate julli la ñuy julli ci bis bi kuñ joxoon textu alxuraan te tuxala luñ la nen nanu ñuy jullee nga gën a dégg arab ci àdduna ñu jox la texte bi rek ne la xoolal fi yàlla di dig digle ci alxuraan fépp nga génne ko boo noppee nga julli te mosoo dégg kuy julli mosoo koo gis yàlla xam na ne doo julli boko ko jàngoon ba mokkal ko gën dégg ñëpp arab do julli mukk julli gu nuróog julli gi jullit di julli loolu moo tax wax ne dañoo weddi sunna ba noppi di julli julli goo xam Da am ay rukkoo yi jàpp ci ay di toog di taaya di sëlmal di jàng Al ak a sëgg ka siggi ñooñu dañoo déclaré dañoo weddi sunna waaye su fekkul woon ne ñi ngi dellu ci ahlu sunna ni ñuy jullee sàcc seenug julli kon duñ mën a julli julli gu mel ne gii ñuy julli benn rakkaa rek duñ ko mën a def ci sunna lañ ko sàccee ba noppi weddi ko baat boobu rek lees mën a jëfandikoo ko kon sunna aaje woona alquranul karim ci mu leeral ko moo tax borom bi tabaraka wa taala waxub tam ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim dama wàcce ci yow alxuraan ji ngir nga leeralal nit ñi lii ñu wàcce ci ñoom suñ leen ko leeral woon duñ ko mën a xam njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo lislaam moo firi alxuraan al karim ngeen ñu mën koo jëfe kon munta ñàkk nit ki jëfe alxuraan ak sunna ñoom ñaar ñépp mun leen a bañ a jëfe waaye ngir mu jëfe alxuraan faw nag mu xam sunna bu xamee sunna ci la koy door a mën a jëfe sunna waxyu la woo xam ne ci sunu boroom tabaraka wa taala jóge ñëw ci yonentam maanaam moom la jàngal lim jublu ci alquran mu ñëw jàngale ko maanaam def na ko ci xolam mu xam ko ñëw jàngale ko loolu moo tax boroom xam-xame dañuy wax ne ku wax ne aajo woo sunna wala nga weddi ko kooku moom génn nga lislaam maanaam ki ko weddi génn na lislaam borom bi tabaraka wa taala nee na wa maa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa du wax waxi neen lu mu wax lu ne wax yu la bu jógee ci sunu borom tabaraka wa taala kooku mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi noppee lim ci teg loolu mel na ne jaaroon na fi ca gannaaw muy werante ci wàllu dogalu sunu borom tabaraka wa taala